Sénéinfo International. chers internautes de Sénéinfo International Sénéinfo.net tale nag jàmm si lu gën a fes euh, si xibaar yi euh, mercredi 6 euh, décembre 2023. les échos les échos moom nee na le tribunal de grande instance de Dakar entre en action. réinscription du leader de lex dans les listes électorales donc la première bataille de Sonko sera fixée le mardi donc mardi la xam ndax Sonko dañ koy réintégrer ci euh, liste électorale yi ou pas donc journal bi tey euh, nee demande en planification les femmes non en à celle en bi xëy xamle tey à sa une. Walf Quotidien moom dafa ñëwoo ci Mimi ture bi nga xam ne def na benn interview foofu noonu nee na emploi industrialisation formation euh, Mimi liste ses priorités. donc nee na Amadou Ba ne veut pas euh, que l'impopularité de Macky s'exporte sur lui loolu la Mimi xëy xaramle ci journal Walf dans sa une refus d'exécution du recours gracieux de Walf les promesses en l'air de Moussa Bocar Thiam nee na ministère n'a d'argent ki nga xam te moo nekk ministre de la communication muy Moussa Bocar Thiam moom joxul aide à la presse yi nga xam ne moom ñoom Walfadjri donc euh, moom accordé na leen démb benn audience mais bu ñu demee aussi euh, ñoom euh, joxuñu leen mujjewuñu leen jox xaalis bi nga xamante ne moom la ñu woon donc loolu la journal bi xëy xamle tey à ça. enquête enquête moom dafa ñëw ci Macky Sall ah, nee na nomination des hauts fonctionnaires de défense Macky blinde le gouvernement donc loolu la journal bi xëy xamle comme niñ ngeen ko xamee ministère bu nekk léegi dafa am benn représentant bu fa nekk bu ñu tuddee ko. Euh, aux fonctionnaires de défense donc euh, kii bu bees la nomination bu bees la ñu def ko ci ministère yi euh, ministère bu nekk am na représentant bu fa nekk donc loolu la journal bi xëy xam la tey à cent huit nee na Macky blinde le gouvernement l'observateur moom dafa ñëw sur la finance sur le financement des partie politiques nee na la voie pour traquer les fonds occultes donc nee le député Matar Diop persiste j'assume et j'ai les de ce que j'avance li nga xam ne moom mooy député euh, Matar Diop moom dafa génne rek ñëw wax euh, li nga xam ne mooy financement euh, Ousmane Sonko nee na Sonko dafay recevoir ay financement occulte donc journal bi loolu la ñëw fësal moom nee na député bi nee na moom Euh, il euh, signe et j'assume et j'ai les preuves de ce que j'avance dans, sa, dans la une du journal. Le pouvoir d'autosaisine du procureur et les possibilités de mission rogatoire. Euh, journal bi aussi loolu la ñëw euh, fësal euh, dans sa une. donc euh, Macky Sall moom la revendication et sollicitation tout tout, tout azimut ah na Macky les derniers coups de pression. moom Macky Sall nee na on est dans une logique de marché électoral une fenêtre d'opportunité. donc euh, loolu la euh, journal bi xëy xamal nee na Sonko aussi le combat sans parrain le jugement euh, sera fixé le 12 décembre donc loolu la journal bi tey xam ne xëy xam ne tey à sa une. source A ah, moom dafay ñëw si Amadou Ba nee na candidat de Benno Bokk Yaakaar à l' élection présidentielle de 2024 nee na éternel retardataire loolu la journal bi xamle nee na si Benno Bokk Yaakaar si point ni prend garde le jour de l' élection présidentielle. son candidat pourrait aller voter en retard. Mais la preuve, Amadou Ba euh, peine à respecter les rendez-vous euh, la fixe aussi dans le cadre de ses activités politiques au plan institutionnel. Donc, li nga ne moom mooy Amadou Ba moom nee na fay dafay am ay difficultés pour respecter yenn rendez yi muy joxe ak yenn euh, calendrier am bi donc c'est un tel retardataire loolu la journal bi ñëw fësal dans sa une. donc lu ñëw rek si Sud Quotidien mu ne inflation gouvernement économique souveraineté alimentaire plan Takkal le grand oral de euh, Ibrahima Sarr donc li nga xam ne mooy Ibrahima Sarr euh, moom def na euh, gëstu bu yaatu yaatu ah def na interview bu yaatu yaatu si journal Sud Quotidien voilà di wax un peu li nga xamante ne moom mooy dëkk bi. lu mu toll si inflation gouvernance bi ak yooyu yëpp mu ngi joxe daal vraiment souveraineté alimentaire mu ngi joxe daal li nga xamante ne moom mooy xalaatam voilà si euh, dëkk bi ak li nga xamante ne moom mooy yenn secteurs yi donc mu ngi siy jëfandikoo bu baax a baax di si joxe xalaatam euh, euh, dans ce quotidien chers internautes de Sene Info International Sene Info point net lii la la ñu indiloon si lu ko defee si xibaar yi mercredi 6 décembre 2023